waaw comme ni ma leen ko waxee sama video sànq rek suñu gaynde yi tey amal nañ seen première entraînement fële ca France ngir waajal li nga xamantene moy euh, match amical diggante Sénégal ak euh, Cameroun mu wara am le 16 octobre bi ñu jëm donc ñu war ko amale fële ci stade Blaert bu Lance mu nar a nekk match bu neex match bo xamantene ñu bari euh, ñi ngi koy xaar comme ni ngeen koy gissé non ci image yi tay gaynde yi entraîné nañ tay Ismaïla Jacobs ak nga xamantene moy mooy Iliman Ndiaye retrouvé waan nañu ci tanière bi ñaar ñi nga xamantene dañu am complicité bu baaxa baaxa baax seen biir ba sax day feeñ ci entraînement yi comme ni koy gissé noonu ni ñu des ongles bali et tout donc des ay gestes techniques donc euh, Iliman Ndiaye ku ne xam l'eau forum et franchement actuellement